yàllaawu yaa man la. alhamdulilah nan sant yàlla bu baax bi ñu suñu borom boole Sëriñ Tuubaa. ñu cër bi ma fekk tey kaw kaw kaw foofa kaw. ak loolu alaxira. man sant bu baax a baax a baax nag. sant Sëriñ Tuubaa rek sant Sëriñ Tuubaa. وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا A'udzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi lay nuyu siyaare mbok internet yi ñuy top di ñu suivre ci seen bi di Leral xasida tv ñu ngi leen di siyaare bu baaxa baax Tay ji ñoo ngi ñew Touba Belal di dalal euh, Serigne Cheikh Diagne ngir and ak mom ci wirde Mahous. ñu gën koo xam ci wirde de fas yéene ko and ak mom fekk ko fi Touba Belal mu leeral ñu si lu baree bare waaw ñoo ngi leen di siyaare yeen ñëpp yeen ñi deglu te di leen safo di leen titero di leen damoo saa su ne kon bokk Serigne Cheikh Diagne bisimilah rahmaani rahiim. bisimilah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril maghduubi alayhim wa lad-daalliin. waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala ñu ngi lay delloo nuyoo yow sëñ Sall bëgg ñëw nag leeral benn tomb ci murit gi tomb bu am solo. boo xam ne euh, kenn ku ci nekk ci nun war na koo xam te jàpp ko ndax euh, ki nga xam ne moom lañ topp muy Serigne Touba radiyallahu anhu euh, ku topp ci moom damay wax ne war ngay góorgóorlu bu baax ci def li nga war a def ak ak ak ak ak sori li nga war nun nag mm, dañoo bëgg tey ñëw ci tomb boobu leeral ko moy wirdu maqus wirdu la boo xam ne bii damay wax ne lu am solo la ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu ñewé te fekk amagul wird wird yim fekkon fekkoon daf koo jël mom ndax julna wirdu khadir juroom ñettat bayam khadir la won julna wirdu tidiane juroom ñettat at zali juroom ñettat ba dem ci géej gi ba ñibisi ba dem gànnaar foofu nag la soog a amee wirdu maxuusati min allahi bi waasitati rasul sallallahu taala alayhi wa sallam dafa wax ne suñu borom moo ko jox teg ko ci loxol yonent yàlla moom salaa sallam mu aksil ko ci moom mooy wirdu maxuusati min allahi bi waasitati rasul sallallahu taala alayhi wa sallam ah moom ci boppam nag mu saxal ko digal ko mboolem ñu topp ci moom góor ak jigéen damay wax ne ah murid yi fi ñu toll ñu bare bare bare bare umpale nañ ko ñi sàggane ci ba fi mu ne dama ne boo wax boo indee téeméeri murid fii doo am ñaari ñaari ñu koy wér loolu nag war nañ ko seetaat te seetaat nu nuy def ba euh, euh, euh, jëf ndigalam loolu ndax damay wax ne képp koo xam ne yaa ngi nekk nga ci ndigalam rek nekk nga ci toolam waaw wér du nag day lu am solo loo xam ne lii daf cee wax wax ju rëy rëy joo xam ne gii digguma ci lenn lum ko wax ndax aju bëtu Osa yaa ji juróom-ñaareel diwaan bi daf caa wax ne képp ku aju si man maa ngi lay digal ginnaaw jullit farata gu nekk nga jàng fukki lixlaas ak ñaar def ko addiyaam moom sëriñ bi ne su fekkee amoon nga wér na ko ca dool soo ko amul na ko ko doyloo man ba ma jàngee ba àgg si loolu ma taayee wér di mur yëpp jam si loola bañ a bañ a wér di maaxuus ba mu yàgg lool sama baay laaj ma ndax yaa ngi wér di maaxuus ma ne ko dee man de maa ngi ci la nga ma waxoon mu ne ma lu mu ne ko wax ma wax ko ko mu ne waaw loolu de ko wax waaye wax na ne de wér di maaxuus de képp koo xam ne kii yor nga ko ci ñooñ saxal ko aju nga ci man nag aju goo xam ne gii jàppe naa ko aju loolu nag ma xam ne mooy li ëpp doole ci am murit aju goo xam ne gii aju nga ko Sëriñ waa jàpp nga ko Sëriñ waa jàpp na ko rali yàlla loolu moom mooy li ëpp doole ci am murit ma di ci waxit loo xam ne lii moom sama waxi bopp doo nga mooy damay wax ne kurus gii man maa ko moom su yàqoo damay wut geneen yor sama kurus gii nag di ci wér li ma gaa yi jox rek wala loo xam ne maa ko coowarewul bopp ci téere yi bàyyi li ndig sëñ bi digle man moo ma neexul dama bëgg bala maa widd lu wér lu kenn digle rek damaa def li sëñ bi digle ba noppi ndax man mu laay woowee saa bopp te ku ma wax leen ma dal sa kaw kon nag di wér lu keneen digle bàyyi li sëñ bi digle loolu man moo ma neexul loolu wax naa ko ci wax ci it ne ndiir sëñ koy wird moom wird wi lu gàtt la ndax day wér day ñett day xafiif ak kamal ak ak mal ñett yëpp a wér nag bul ci yor bii mu wuuteeg bee nga defee ne boobaa wér wala bee wér yëpp a wér waaye nag euh, xafiif bi daf ci gën a gàtt moo ci gën a gàtt ci kuy liggéey wala kuy euh, ñàkk ak jot boobu moom bu gàtt la fukki minute ak juróom ba ñaar fukki minute loolu gën jaay yéex moom daanaka ñaar fukki minute du ko du ko weesu loolu yi damay wax ne ndiir si ma koy wér noonu diggante boobu ku ma laaj si ma ne mag nga ne ma la ndigg soosu diggante soosu ci loo ko nekkoon may la ci ndigalu Sëñ Tuubaa laa ne loolu yi neex na ci euh, ñett yooyu yëpp nag boo ci yor boo ci yor rek baax na moom mën nga koo saxal moom saxal ko subaa ngoon ñetti euh, wér yooyu yëpp nag ñoo wér muy euh, xafif ak kamal ak akmal waaye nag xafif bi daf ciy gën a woyof moo ci gën ci kuy kuy liggéey wala kuy kuy kuy kuy ku am gën a ñàkk jot boobu itam euh, moo ci gën a gàtt waaye bàyyi na ci kilifa yi ñoo xam ne moom lañ yoroon ndax man sama baay moom ko jëkk a jox dafa wax ne moom bi euh, boobu sëñ Basiiroo ko joxoon ne ko man bii daa yor may it sëñ jox na ma ko boobu bu bii li ma joxoon euh, jox ma ndigal nag ci nang ko na koy jàng suba ngoon moom wird bi képp ku ñu ko war a joxe am nga ndigal ci joxe ko man ku ñëw danaa la ko jox danaa la wutal day bi bu fekkee amoo ko waaw ah loolu nag lu am solo la loo xam ne mm, murit bu nekk war na koo xam damay wax ne murit yi am na ci ñoo xam ne boo waxee dañuy wax ne ah man sart yi laa mën a gudd man sart yi daa nga ma ko daa nga may leen sart yi moom ëpp naa tudd ndax sart yi moom. Euh, mooy yajibu ala kulli mukallafin li nga xam ne war na ci mukallafum jullit mu ne mooy sart yi sart yi moom dama ne nekk ni mu waree kii wird ni la war a kii buñ jàpp ne rek boo bàyyee wird yooyu sart wàcc na la sart yi wàccu la musu wàcc te la wàcc ndax mboolem li nga xam ne sart yi indi na ko rek amu ci lenn loo lii moom boo wirdut it mën naa ñàkk ci yow sart ni mu waree kii wird ne la war a kii moom boole ci bañ a wird nag te wird day lu am solo ci ci ci ci ci yoonu yàlla ndax sëriñ bi day seet la nga xam ne lii mooy li ëpp doole ci yow li nga xam ne moo gën ci eh, eh, li nga war di def suba ngoon ndax ndax saxal gi dafa wax ne lépp loo xam ne lii luy leeral xol luy raxas xol ba la lu ñuy saxal lay doon waaye du doon lu ñuy def di bàyyi ndax euh, euh, li mu li li muy jëkk a def mooy jàngal leen wird bi ba nga xam ne dañ koy dégg ba xam ne loolu mooy wird wi nga xam ne danañ ko xam bu noppee nag sart yi itam danañ ko ci teg leeral ko moom it ba mu leer ba nga xam ne ku ko bëgg a def danga xam da nga xam bu baax a baax euh, noo koy defee ak ak waxtu yim laaj ak ndax da cee bari ñoo xam ne dañuy defee ne soo am na su ñëwee ngoon rek su takkusaan bi jàllee dañoo wax ne wuroo koo def nangam fekk na lépp wu ci nekk am na waxtu boo koo def. dañ koy fay itam nag boo ko boo ko fekkente ne eh, eh, eh, jëlal nga ko te man koo fay da nga koy fay waaye fay gi it su fekkente ne dañoo wax ne lépp loo xam ne di yaa koy def nga def nga ko ñeen fukki bis yoo xam ne jëndalul nga xam ñeen fukki bis yëpp def nga ko ci suba ngoon ni nga ko war a defee ne loolu boo ko jëlalee tey itam bu fekkee am nga ngànt fay ko boo ko fay tuyaay ji boo tuyaay ba jëm dana dugg dama war a duggee waaw. loolu laa ci bu ko fee nag loolu nga wax wér bi moom mi ngi tàmbalee ci bu dee xafiif bi moo moo ci gën a woyof moom laa li moom laa moom laay joxe ndax man Serigne Saliou moo ma ko jox moo ma jox ne euh, nga nga nga nga di ko saxaal jàng subaa ngoon képp kuñ ko war a jox am nga ndigal ci joxe ko kon moom laay joxe wird bi nag mi ngi tàmbalee ci onze billahi min shaytaani rajim وإني أنشأ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات سياتي وأعوذ بك ربي أن يحضرون مرة واحدة موي بن يون غني يعني أعوذ بكلمات الله تعالى من سر ما خلق ثلاثة موي نيت يون غني يعني بسم الله الرحمن الرحيم بن يون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نيت يون ثلاثة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما بكم من من فمن الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله محمد صلى الله عليه وسلم نوح بسم الله الشيطان العظيم برعاني سديد سورة ما شاء الله كان أعوذ بالله من الشيطان نيتيون فوف غي دال تاغوك شيطان كوكو ساخال موم داغي دال تاغوك شيطان موم الله لا اله الا هو الحي لا تاخذه سنة ولا نوم لو ما في في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ولا يهتد بسيد من هلمي إذا ما سعوا سيا كرسي وساوات ولا لا ولا يهود إسوما هو الألي العظيم ومن مرة بني عن ذلك خير لأن قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز المعاني ثم أرسل عليكم بالمؤمن الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل أصبح لا ولا إله إلا هو علي توكلت ورب الأرض العظيم مرة من بني عن ذلك خير وفوّل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مرة بني عن ذلك خير ne asbiha lahu laa ilaha illa huwa ali tawakkaltu wa rabbul ardi azim kooku moom ngay wax sab xiina maratal mooy juróom-ñaar fukk 70 moom nga koy wax ne wax astafirullah asima si laa ilaha illa huwa ayul xewam moom it sab xiina maratal juróom-ñaar fukk nga koy wax 70 ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ali bi ali bi sabi salaatullahi tabaraka wa taala wa salaamulahi xamsiina mooy 50 juróom fukki yoon nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammad fatihi lima axlaqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril xaqi bil xaqi wal haadi ila siraatika al mustaqim ولا هدي قدر ومقدار عظيم مئة موي تمر سان فوان غيو نو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير حسره موي فك يون 10 نو اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي النبي لمي وعلى اله وصحبه وسلم بركه تعبد بها سعاده لا سخاوه بعدها واكبر لله منك سخط بعده ابدا يا كريم يا جميل يا ودود يا رب العالمين يا بدي يا باو يا في يا في يا لطيف يا كريم يا أكرم يا يا أكرم يا يا أكرم يا أبر يا يا رب العالمين يا رب يا لطيف يا بخ يا نافي يا أكرم يا يا دائم يا خالق الدنيا والآخرة مالك الدنيا والآخرة ما فيهما وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا خالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج متحرة وهم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام لول بن ينكو ترجمان جمو جي جي مريس نك ساتي مي تنبيهون نك اللي اغي ومن سوره اسال ورد المبارك بوكنا سي سارت ورد مبارك لوي ان لا يترك صاحبو صاحبو تلاوه القران كوي كيكو يار فوك مو صاح دي جانغ القران ومن ومن كان عافس على خديجه ومن كان عافس كو فك ان كو موكل القران لا كوكو فلا بود له قراءه حزبين في ونسفين في ليلي كوكو نافله لا ki ma ko alxuraan sëriñ bi sas na ko muy naafila guddi gu ne ñaari isib ak nisib ni ñu koy defee ci koor gi bu dee ku mokkal alxuraan te du murit itam te te te te naafila wutit te wirdut itam sa uh, naafila googu sas na ko ko képp ku di murit rek na la falaa buddal woo xiraas bi benn ba nisbi fii lay li mahal witri ànd ak safaak fi naar aw fii lay aw fii naxaar moom itam naafila gi dañ koy fay su fekkente ne am nga gàllankoor ci guddi gi ba mënoo ko bu bët setee ba sobal fi fi fi fi yor yam mooy ineer boo ko mënee fay war nga ko fay mën a moom moom naafila gi hmm. man kaan waman waman lam yakun haafisan ki nga xam ne mokkalul alxuraan itam kooku moom it nay naafila guddi gu fukki rakka tekki sabaak witar mooy fukki rakka ak ñett moom itam raka bu ne mën na caa jàng ñaar fukki lixlaas ñaari rakk sëlmal ñaari rakk sëlmal ba mu fukki rakk nga tekki sabaak bi tara sabis ma ak quri al kafirona lixlaas faalaxi naas mooy mooy safaak moom it ki mokkul alxuraan mën na jàng ñaar fukki lixlaas yooyu ndax lixlaas yi ah, bu jàngee alam traak suuf bu fekkee mën na alam alam traak suuf baax na waaye bu jàngee lixlaas yi baax na ndax lislaam lixlaas moom daf ne eh, dafa ëpp doole ci mboolem yi ñuy def hmm. ñaar fukki ñaar bu ko defee ñaar fukki lixlaas sax fukki raaka yi day daal tolloog ñaari téeméeri lixlaas wax na ci sëriñ na ci masal ak ne ñaari téeméeri lixlaas yooyu ku ko jàng ci bis suñu boobu dana ko jégal jàkk bakkaar bu juróom fukki at loolu kon lu mot di def la ndax lixlaas moom yoon woo ko jàngee rek am na loo soree sawara ci julli ak ci lulu julli hmm. kon booba lam yekkoon afisa kooku fa la yoqru maa afisa na mu li mu mokkal mooy lixlaas wala alam rek lu mu ko mu ko mën fukki raaka yi maam mu tekki safaak wéetal hmm. wéen wéen xàll fi ma bay na asay niil waxtaan ci diggante ñaari waxtu yooyu wa min suróot yi bokk na sarti ba tey mulaasamatu salaatul jamaati illaa li uslin li rijaali ku amul ngànt tey góor buñ noddee si jàkka ja bu bu te amoo ngànt demal julli soo amee ngànt nag mook dem ngee yem soo amee ngànt moom mel na dem nga waaye soo amul ngant nag defoo dara kooku moom nanga nga daal dem ci jàkka ji jàkk jàpp ba sell nga dem ci jàkka ji julli ji loolu mooy mu kàlla fu jullit mu nekk loolu la loolu la ko war waaw bu dee jigéen nag moom soo mi ngi koy wër moom sartaluñ ko muy dem jàkka ndax moom jigéen moom lu mu gën a jullee daf ne bu ju fu bu julee nekk afaam koo xam ne dafa wax yoon bi alayhi salaam salaam ne ko jigéen joo xam bëggoon a julli moom fi jàkka ji ci fi muy jullee ci jumaa ji yonent bi saa sangam ne ko ah loolu de xam naa bëgg nga ko ndax su ma la diggalee da nga ko def mu ne ko waaw mu ne ko jigéen de jullee ci jumaa ji mu naa mu ne ko jullee ci jàkka ya ngeen dendal moo ko ëpp euh, tuyaaba waaw jullee ci jàkka ya ngeen dendal jullee ci kër ga nga dëkk ci ëtt ba moo ëpp tuyaaba jullee ci kër ga nga dëkk ci ëtt ba jullee ci sa néeg moo ëpp tuyaaba nga jullee ci sa sa néeg jullee ci néeg pekk lañ daan wax néeg pekk néeg wanag mun ne jullee foofu moo ëpp ci euh, tuyaaba kon nag jigéen moom c' certain luñ ko muy dem jàkka hmm. mu ne wa min surati bokk na ci baat sart yi ba tey xiraatoo baat de xarsi ba de suufi nga di ko jàng ginnaaw takkusaan ak ginnaaw fajar loolu it am nag leeral mooy takkusaan gi sañoo koo jiital te te te te julliwoo ba noppi waaye fi nga sëlmalee ba timis loolu mooy muxtaar mu gën ci wérd wi nga di ko ci wérd bu bu diggante takkusaan ba timis moy muxtar bi waye li te am le timis ba njëlit moy moy daror ji soko defé mom joxé la yeex na waaye jooxe la mom du fay su wéso fofu nak fayé ci dess fay gi nak amul waxtu sa yo ko mënee fay rek sang koy fay fay mom amul waxtu mo budé dee bu njël bi mom bu noddee nodd gu jëk 5h liko euh liko fi tambalé bu bët set moy muxtar bi bobu jënt fenk moom sañ nga koo jiital moom bala ngaa dem ci jàkka ji bu fekkente ne sa waxtu may na la ko bu boo mën nga ko fay jiital mën nga koo jiital soog a julli ji ci jàkka ji li ko tàmbalee foofu cinq heures ba jant fenk mooy muxtaar mi ci wedd bi waaye su li tàmbalee jant fenk ba saan mooy daroor ji mooy bu weesoo boo ko fi defee foo ko fi defee rek baax na yo yaaru yaaru yaar ñooy ay waxtoom bokk na ci sart yi ba tey taalimu maa jibu ala kulli mukallafin xam lu li nga xam ne lii war na ci mukallafum jullit mu ne mooy xam say farta say julleeg say koor ak say jàpp ak sa ngopp li li nga ci war a def lépp nga nga xam ko loo ko loo doon doon doon mag moom ñakk kii doo doo ko mën a ñàkk a def wu nekk rek moom kooku weddut it loolu war na la waxtu wu nekk rek. loolu moom kenn ku jullit mu kàllifu jullit mu nekk war na koo xam moom mais la xay wa akaay wa salaati wa maa walaha ak lépp lu ngi ci yooyu rek li faratay julleeg koor ak jàpp ak li nga ci war a def lépp euh, euh, moom waxtu wu nekk war nga koo xam lu ji bokk na ci sart ba tey <coughs> di ah, ah, euh, ànd ak euh, sëriñ nit nit yàlla yi loolu it dafa am wird yoo xam ne dañuy wax ne boo boo ko boo ko yoree wird bi dañ lay wax ne dañ lay tere nga euh, siyaare ji wenn wàll yi woo xam ne bokk leen fu ngay ne moom nag ne kullu euh, képp kuy kuy kuy kuy kuy nituk yàlla rek am mën nga ko siyaare ji am nga am nga ndigal ci mën nga ko mën nga ko siyaare soo amee sa addiya jox ko soo amul mu taal la nga nga ñaanal ko nga taal mu ñaanal la nga dellu ci liggéey waaye terewul la wenn wàll yi moom muy murit bi tijaan bi xaajir bàyyi ku a doon nitu yàlla rek sañ nga koo siyaare terewul la kenn mu des nag wa bakkaar yu mag yi bakkaar yu mag yi moom moomit it sëriñ bi seet na ko ba bi mu ko génnee ci mën a mat na ñaar fukk yu bari la mooy ay naan sàngaraak rey nit ak yu bare bare la ak dogo sa yaari way jur ak fen ak jëw na ñaar yooyu daal ñoo ci mat bàyyi xel bu baax a baax moom mooy fen ak jëw fen ak jëw moom dañoo jaxasoo ba uh, bari ci nit ñi lool te te te loolu mooy ci bakkaar yu gën a gën a mag yi la bokk ndax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne mbir mu ne de am na caabi ceeb yi àjjana mooy sàkk sarax ceeb yi sawara mooy fen wala yaasu billaa yan ci yàlla musal fen nag fi mu ne dañ ko woyefal lool waaye fekk na mooy li gën a rëy ndax ceeb yi sawara mooy fen kon fen moom ak jëw jëwit sëriñ bi dafa wax ne moom sàcc sax a ko gën ñu ne ko lu tax mooy sàcc bi kat bu sàccee saaku ceeb bu demee la koy lekk wala bu dee xaalis mu jëriñoo ko wala jëri wala lu mën a doon bu dee euh, jëw moom bakkaarab kese rek lay am waaye du am lu mu lekk du am lu mu naan loolu na kon lu lu lu mot a moytu la hmm. ne nag tërkul kabaay kulaa bi li tijaay nag ila laay tabaaraka wa taala bi tawbati nga wéeru ci yàlla ci tuub nag ndax ku tuub moo wéeru yoo ci yàlla waaye ku tuubul ci yàlla hmm. ndax tuub dafa munta ñàkk ci ci doomu aadama bu ne ndem bëgg naa dem ci ci boromam ndax tuub moom su maam aadama moo tooñoon suñu borom ci def lañ ko doon tere foofa suñu borom xiir ko moom ci mu tuub suñu borom daal di koy jéggal daal di leen fab nag indi leen àdduna moo tax tuub moom mooy léegi sëñ bi laa daan wax naa ne tuub de mooy saafara si nga ne ku ko naan ku koy naan de da nga wérte duut dara duutu la daal su na ko dee naan danañu wérte dara duutu daal moo tax tuub mënut a ñàkk tuub moom waxtu moom nag moo tax indi na ci indi na ko ci wérd bi asafla asim xam juróom-ñaar fukki yoon suba ak ngoon te yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam nee na képp koo xam ne xëy nga tuub gont nga tuub de diggante bi loo fi def suñu boom jéggal na la ndax bëgg kuy tuub na wax na ne yonent bi sallallahu wax ne ne itam su ngeen dul doon def ay bakkaar di tuub de suñu boom dañ leen fi jëlee indi fii ñuy def bakkaar di tuub suñu boom di leen ko jégal kon nag waxtu bu nekk rek tuub ki tuub gi mënut a kenn ku nekk rek loo gën a tuub rek gën a jege sa borom dafa wax ci kii téere boobu ne ku bëgg yàlla da ngay nangoo tuub hmm. loolu mooy wirdu maxus bi nga xam ne mooy wirdu xafiif Kamal moo ko ëpp Akmal moo leen ëpp waaye yëpp wér loo ci am woo ci woo ci jël rek wér na loolu nag moo tax ñu war ko leeral xamal ko murid yi góor ak jigéen ba képp ku ko bëgg jël ku nekk mën nga koo jëli ci ci ci site bi di leeral xasida TV kon nag ku ko ci jëlee ku nekk na nga xam ne li nga ci jëlee lu wér la loo xam ne lii Euh, lépp loo ci bugg xam itam soo soo soo wootee ci numéro ñaar numéro yooyu ma la jox boo ma boo ma wootee da nga ma ci jot mooy benn bi 77 696 63 58 mooy numéro Baye Cheikh Diagne Daaray Kamil Touba benn bi mooy 76 589 56 89 ñaar numéro yooyu ku ci am looy leerlu ci wirdu bi wala lu mën ci ci loolu boo loo xam ne lii euh, soxla nga ko ku la ci leeral. soo wootee ci boobu boo bu soobee yàlla di ma jot boo ma ko boo ma ko laajee ma ma la ko li ma jox man maa nekk Daara Kamil Touba ci Daara Kamil Sëñ Abdou Lahad képp ku fa ñëw itam soo boo boo laajee ana euh, Baye Cheikh Dia ñu la ma ci biir si ma fay nekk ñaari bis rek fa dul nekk mooy talaata ak àllarba waaye yooyu bis yëpp bu si ci soxla boo ñëwee foofu bu soog yàlla da nga ma fa fekk waaw. waaw bu dee talaata ak àllarba moom ku ku ma soxla moom da ngay ñëw Touba Belel ci Touba Belel Sëñ Blaat foofu dama fay def daara alxuraan fi laay nekk àlla talaata ak àllarba ak alxames ba ajum ba altine ca ngoon nag maa nga ma ko ci daara Kaamil Touba ku ma soxla foofu nga may fekk waaye ku woote ci numéro yooyu bu soobee yàlla da ma jot waaw kon dégg ngeen ko ni mu ko joxe ak leerali te leerali leer na am na solo ci ñetti euh, xeet yëpp yiñ koy defee mm. te képp kum lënte rek numéro baa ngi noonu mm. soo soo ko woyee mu wuy la leeral la ko ba mu gën a leer te tamit boo déplacé woo ñëw daaray kaamil tëjut ay buntam di nga ko fa fekk waaw ci ci ci ci waxtu wi nga xamante ni day waxtu woo xam ne euh, ci waxtu wu mu jàppul. waaw wax dëgg si yàlla euh, ku ku ku ñëw rek dina la ko leeral ba mu leer. incha allah numéro yi mu joxe tamit ku ci wootee di nga ko jot. incha allahu rabbi waaw. yàlla yaa man la. alhamdulilah nañ sant yàlla bu baax bi ñu suñu borom boole Sëriñ Tuubaa. ñu cër bi ma fekk tey kaw kaw kaw foofa kaw. ak yoon alaxira. man sant bu baax a baax a baax nag. sant Sëriñ Tuubaa rek sant Sëriñ Tuubaa. وآله وسبي والأنبياء واذكرته المقدمات ربيا